waa ànd gësam tuddee ko grand vendredi dugalaale ci pharmacien yi nga xamante ni àjjuma moom kenn du jaay garab yéenekaay bi desuwaat ci revendication syndicaliste yii dañuy xamal ne fi mu toll nii état bu Sénégal jommi jommet la ñu def fi mu toll nii ci médecin yi nga xamante ni nangootuñoo faj Le Quotidien yéenekaay moom doxantu ba duwaanu Louga yéenekaay bi desuwaat ci tëj ràpp laa la wax benn médecin dugatul ci biir hôpital bi def révélation xamal ni ni ki démb la verdict bi jugee ko ca tribunal bu Louga yéenekaay bi dañu niki démb la ñu fanaan seen guddi gu ñëkk ci biir kaso bii lii moo tax médecins yi nekk ca duwaanu ne la dugg nañ ci grève ñetti fan yoo xamante nii niki tey jii lañ koy commencé les écoles yéene kaay di ko dëggal ne coowu astu soxna ñeenti ci sage-femme yi nga xamante ni ñoo nekkoon ca biir hôpital ba dugal leen ñoom ñeenti ñëpp ci biir kaso bi yéene bi dañu xamal ni am na ci ñaar ñoo xamante ni jàppoon nañu leen waaye li tax dugguñ ci kaso bii moo di ñoom ñaar ñooñu dañoo nekk en état de grossesse maanaam dañoo ëmb ba diis lii moo leen sauvé waaye

législative yi ko nar a fa yéene nii en seen patron moom Macky gisul leen lu dul gagné élection yii lépp ngir mën a am ndam yéene bi def taxaw seetlu ci doxalinu Macky Sall jiine gannaaw ba mu taxawalee benn commission sant leen ñu def tournée nationale ngir mën mën a jubale yenn ci ay responsable yi nekk ci Benno Bokk Yaakaar moom Macky Sall yemul ci loolu ndax fi mu toll nii même ñi mu tabboon ci élection locale yi ñu génn ñu am défaite ñoom ñëpp la gën a jox courage ñenn ñu ma gën na la dooleel lépp rek ngir mën a am ndam ci élection législative yi ñu jëm président Macky Sall yemul ci loolu ndax fi mu toll nii ñi mu teg ba dëgg moo di ndawu Sénégal yi nga xamante ne nii ñu ëpp ci ñuy voté ci élection yi ci ñoom lay jugee ko lii moo tax fi mu toll nii booy xool initié na ñaari programme ngir mën a jege ndawu Sénégal benn bi di xëyu ndaw ñi benn bi di jokkoo ak Macky lépp ngir renforcer relation ak ndawu Sénégal yi ngir mën a am ndam ci élection législative yi ñu jëm waaye yéen kay bi duñu xamal ne Macky booy xool ci diggante élection locale yi ñu génn ak léegi si li jugee ci opposition bi transhumé ñëw ci mouvance présidentielle bi kenn xamul nu mu toll lii di wane ne toll nii Macky gën na am confiance ci élection législative yi ñu jëm alerte yéen kaay moom def taxaw seetlu ci ëttu politique gii yéen bi dañu xamal ni politique daal kenn xamul lu mu doon ma la ay xaritu démb ngay gis jamono ji politique tàqale leen dugg ci boppam moo salte boo ci nekkee da dem ba benn moment fàtte ne sax yow nit nga relation yi nga amoon ak say nit yëpp da koy mujjee perte critique yéene bi dañu xamal ne am na ci yenn maire yoo xamante ni ci coalition yi nekk ci opposition bi la ñu jugee koo gagné élection yi waaye bëri ci ñoom ñoo xamante ni fi mu toll ni fekk nañu Macky Sall yéene bi di laajte ban sanction la ñu teg maire yi nga xamante ci seen fukki maire ñoom ñu ñëpp ku ci nekkutoon ci Yewwi Askan bi yaa ngi woon ci wàllu Sénégal opposition bi jàppale la ba nga nekk maire tey ji nga bàyyi fi lépp fàtte sa askan bi nga xamante ni ñoo la faloon dem fekki mouvance présidentielle yii lii war a tax ñu sanctionné leen ci élection législative yi ñu jëm La Tribune yéen kay ni en tout ci ay àndandooru Macky Sall moom fi toll nii seen nekk ci benn bokk yaakaar ñàkk cee nekk sax ko gën kaay yéen i kaay bi ne xoolal ma Moustapha Niass rek mu tànnoon ci élection locale yi ñu génn dañ koo dóor dóor yi métti ci bañeeru Benno Bokk Yaakaar mën la Abdoulaye Diatta ma nga xamante nii moom moo defoon liste parallèle Benno Bokk Yaakaar moo mujjee dóor candidat wu Moustapha Niass ca Kër Madiabel dóor yi métti yoo xamante nii du ko fàtte benn yoon yéen bi ni kaaw Moustapha Niass ngeen gis waaye Aminata Mbengue Ndiaye tam noonu la mel ca diwaanu Louga naka noonu tamit Idrissa Seck ca diwaanu Thiès ndax booy xool Idrissa Seck waxuma la sax dafa perte mairie yi nekk ci biir Thiès yépp waaye même bureau de vote am sax dañ ko faa gagné woon moom ci élection locale yi ñu génn yéen bi di laajte nag ñoom ñii lan lay di def ak ñoom fi toll nii ci benn bokk yaakaar Sarr bi nga xamante ni fi mu toll nii ëpp na fukki weer ak juróom yéenekaay bi di xam ne gis nga accusation yi nga xamante ni moom la Adji Sarr yëkkati woon teg ko ci ndodd Ousmane Sonko yii mën na la amul benn preuve dara waralu ko woon lu dul taqal Ousmane Sonko dong te képp nag kuy xaar Adji mii am doom yaa ngi xaar gàcce ci sa bopp ndaxte Adji Sarr mii du mës am doom <laughs> njuuma noo sant mu ne wele xam naa ne daal tuuma moom yomb na lool ci réew mi di Sénégal waaye la Serigne Cheikh Tidiane Sy Maktoum waxoon rek yal na yàlla protéger réew mi yal na yàlla sang réew mi il foo que ñu sang réew mi ngir mu jugee ko ci musiba mbàbbu kumba yi mu nekkee ah kon baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah yéen ñi doon jooy fan ngeen di jëlee ay produits yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy léegi nag seeni rongoñ mën na fer jot ci produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy yomb na lool ndaxte adresse am mu ngi ci poste Thiaroye yi arrêt table Tivaouane neex jot lool képp ku bëgg am ci produit yi nga xamante ne nii moom la leen kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy jagleel gaawal gaaw woote au 77 502 15 63 wala 76 378 17 ak kenn bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy jeex na ci fàttali nag consultation invitation yi kenn bëggul ba Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy mu ngi koy def talaata àllarba alxamis nii da nga am cas d'urgence bu mënatoo toog di xaar gaawal gaaw woote au 77 kon nag mbokk yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy yombalal na leen yoon wi ngeen di mën a jot ci produit am yii numéro yaa ngu ko ku ci wootee da nga jot ci ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha yi ñu ci bërëb bii jot ci produit lu yi faj sa tawat bu dee rendez-vous privé yi kenn bëggul ba Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy jox na leen ñaari bés di altine bu jot ak àllarba bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu maanaam 15 heures jàpp 17 heures kenn bu ba Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha si daal moo gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi kon nag jaarama kenn bëggul ba Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy